sedd na est que doo dem ci docteur bi mu kiyal la ko maga noona général Malika Toubacouta attention Mansour ñoom ñaar daw nañ daje ay ca Toubacouta ay mboot na ko ay général daan ko général daan na Toubacouta général Malika daan na Toubacouta intérêt ak kan internet Badara internet mooy bëre kan mooy bëre Cheikh Diagne Badara internet ak Cheikh Diagne demi-finale lese oh loolu combat la eh lan moo xew Badara internet ak Cheikh Diouf ah buddi na ko door na ko suuf daan ko ay la ko wax. fii ci terrain gaal gi ndeysaan. Lamyn TV. Lamyn TV. Lamyn TV. waaw ak Leewtoo TV. waaw ñaari TV la ñoo bokk ndey ñoo bokk bay. waaw noonu la fa demee. jaajëf. Modou Jam Teeri mu ngi dëkk Pointe Sarène ci wetu Joal. waaw ci département de Mbour. Mhm. waaw guy gi mu ngi dëkk Gagnic côté Kaolack la bàyyeekoo. guy gi Gagnic la jógee. ndeysaan. ca côté Kaolack Ndangan. muy bëre ba egg demi-finale. Sadiane wàcc na. waaw noonu la fa demee ñoom ñaar kenn démé démérité wul. waaw buñ bëree ba demi-finale. Modou Jam Terry Modou Jam Terry maa la ko wax da nga koy assuré demi-finale léger Modou Jam Terry attention eh lan moo xew suru xal na ko daan na ko de Modou daan na ko de. gannaaw ba ñu noppaloo ndaan ndox ñëwaat nañu Cheikh Tidiane Niang Thiaka Faye arbitre ba soufflé na leen bëre leen waaw waaw Cheikh Tidiane Niang Thiaka Faye Mansour bàyyil xel beneen combat bi Mansour combat général Malika bi waaw waaw général Malika ak Ibou Ndiaye Obli arbitre baa ngay wax ak ñoom beneen côté ba yaa ngay am Cheikh Tidiane Niang ak Thiaka Faye waaw waaw xalaat naa ko nag Ibou Ndiaye Obli général Malika Cheikh Tidiane Niang Thiaka Faye kaara daas baa ngi noonu ñoom ñeent ñoo ñoo des ci luur yi attention ey caaka jël na tànk bi léegi xale bi rasu génn caaka yootu na tànk bi Seex te Tijaan xajal ko attention général Malika Ibou Ndiaye ey Ibou Ndiaye dafa diis ah Ibou dafa diis waaw ay ca waaw mais policiers yi duñu xajal ñoom waaw waaw général Malika Ibou Ndiaye obli mais chef Ibou obli ca Ibou obli général Malika waaw waaw Cheikh Tidiane ñaa caaka fay mi ngi noonu général Malika Ibou Ndiaye Obli mu nekk ay demi-finale yu neex ay combat ya nga xam ne combat calcul la attention Tidiane am na caaka nga yootu mais jàppagul ba pare ndengeñ ko Lamine gis nga gis nga Cheikh Tidiane fa mu ndengeñ loolu fee moom la bu la defee ni des fois mu xëcc la war la ndomb wala mu xëcc la nga ñëw mu caxabal la ndeysaan ko koy seex Tidiane Niang Tidiane Niang lii fooram la mais Bisalé dafa diis mais caaka caaka dafa diis waaw gis nga fam fam ko kor fam ko kor ci kaw am na nu muy defee mu ma

wax. waaw Cheikh foofu la bàyyeekoo. Cheikh Diagne attention ay Modou jël na ko xale bu daa bëri doole. attention ay ay waay Cheikh Diagne daan na Modou jam tëri. Cheikh Diagne. Cheikh Diagne daan na Modou jam tëri. Cheikh alias bis bi ñetti tur nga am lu war a ñetti tur yi. waaw yëpp gars yi la rek xam nga gars yi moom booy pourvé dañuy yokk rek du ñu wàññi. nga bëre ba ñëw ba final. waaw sant yàlla rek mënuma ñu ma daan tamit xëy na suma sek moo si nekk rek waaw. nooy waajale final bi. waaw comme ni ma waajal yëpp rek di ñaan yàlla mu may ma ma gagné lambu ji waaw parce que loolu laa bëggu waaw. ñu gëjoon laa gis tey nga ñëw andiwaat leneen lu bees. waaw ñun chaque jour si liggéey lañ nekk fépp fu ñu mën a nekk ñu ngi concentré wu ci suñu liggéey waaw. loo yóbbante loo yóbbante loo yóbbante ki ngay bëre. waaw sport la rek champion la moom tamit parce que mbër yi bari woon nañ kon bu ñu ñëwee ba final yaakaar naa ne. yaa ngeen a bëre général Malika. bëri nañu lu bari maa ëpp li ma ko daan tamit mais maa ngi ñaan yàlla mu may ma ma daanaat ko tey. ñaata yoon ngeen bëre. bëri na est ce que matul daan naa ko six fois gagné na ma deux fois daan na ma deux fois gagné ma par point benn yoon. jaajëf ci kanam. merci beaucoup. doomu ndeyu Mansour Fall oh, maa ngi def ay débat débam Malika champion ziar naa la. bu baax. mbaam nga jàmm. am naa jàmm bu baax a baax. ngi ñaan yàlla may ma ndam waaw waaw bilaa xam nga loolu lañ ma xamee quoi lu ma am ci làmb looloo ma ko may kon loolu mënu ma koo bàyyi dafa nekk ci man sama deret la quoi mhm. waaw léegi waaw. gis nga génn ay ndaanaan. waaw noonu la demee looloo gën a tuuti xam rek ñun waaw. xaar final bi acca Malick. général Malika final lourd baa ngi noonu diggante général Malika. ak Caaka Fay alias Biram Kunkung wala biis bi tey ji ñu ngi fii ci terrain gal gi tey di dimanche le 21 mars 2021 gannaaw ba lambu toogee lu tolloog at tëggul mbër yi tey ji ñu reprendre li nga xamante ne bii mooy jongante yi commencé waat ko fii ci terrain gal gi diggante Biram Kunkung ak ki nga xamante ne bii général Malika Biram Kunkung waaw waaw Ouzin Wassare Lamb nuyu naa la mbaam nga jàmm fay naa la bu baax a baax lamb ji sénégalais yi dañoo namoon lamb sëñ Babacar dañ koo namoon moo tax tey gis nga li fi jot a xew lépp jàmm rek a fi xaj. jaajëf Ouzin borom Leewtoo TV borom wasaare lamb waaye man Leewtoo waay ay waay man ak Leewtoo su may nelaw sax Leewtoo laay wax ñoom ñaar dañuy dégluwante dañuy naxante diggante caaka fay la ak général bu Malika waaw waaw Mansour kontaan naa ca loola ngay def de yàlla na jàmm yàgg bàcc atteex taaliba sëriñ atteex mbàkke maa ngi laa ziar Moussa fay làmb ji fële ca Brésil kontaane naa la di nuyu Aliou Sène borom say jaamaane production foofu ci Allemagne ku bëgg làmb ngi noonu diaspora bi yëpp nuyu naa leen waaw waaw ñu ngi fii ci terrain gaal gi Thiaka Faye général bu Malika waaw waaw du yomb de maa la ko wax Thiaka Thiaka luur la nag général Malika tamit luur la attention Caaka Faye général Malika attention Caaka jàpp na loxo bi xëccu ko ñu tegante bopp ñoom ñaar tegante nañ bopp attention Caaka jël na tànk ba ma ngi koy plaqué war na ko général daan na général mboot